njawar gi nga xam ne nag moo lëmbee àdduna waaye tamit rawatina sunum réew buntu njabar bunt la boo xam ni lislaam <clears throat> àdduna ci te gàttañ lu ci tamit nag moo xam ci aay yi la moo xam ci xadis yi la moo xam ci wax borom xam-xam bunt bi lim njëkk indi mo waxi borom bi subhanahu wa taala wax naan wa laqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fi l min xalaq ak yuminuuna bil jibti wa taaxut mu indi firi bi ko ibn al Khattab firi ak bi ko Jaabir ibn Abdullah firi ginnaaw loolu mi indi xadisu abi hurayra bi nga xam ne mi ngi ci sax buxaari ak sax muslim yonent bi naan ijtanibu asaba al mubiqaat moytu leen juróom-ñaar mbir yi nga xam ne daf leen di alak ginnaaw gi indi na xadisu jundub ibn abdullah al bajali xadis bi am na wuute ñii ni wér na ñii ni euh, wérul ni yonent bee ko wax waaye wér na ni jundub moo ko wax xaddu saaxiri darbuhu bi sayf ginnaaw gi mu indi xadis bi ñëw ci sax Buxaari ma xadisu Bujaalat ibnu Abd bi muy nettali kon loolu mooy bunt bi waaye yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ci laay bi mu njëkk indi mu ni wa laqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fi l min xalaq bi ma ngi ko tàmbalee ci wa maa kafara suleymaanu walakinna shayatina kafaru yuallimuuna annaasa sixra te suratu baqara ba yàlla subhanahu wa taala daan wax naan suleymaan moom weddiwul yàlla waaye seytaane yi jinne yi ñooy weddi yàlla li tax parce que dañuy jàngal nit ñi njabar ak di ko tasaare yàlla subhanahu taala doon xamle nag ni ñi nga xam ni dañoo jëndee njabar ak njub am njub lañ jël sànni fële jënde ko njabar ak yëf yëfaan yooyu yàlla nee na ñooñu nañu xam ni yawmal qiyaam amuñu fa benn cër fa yàlla wala qad alimu dañu xam ni kat li man istaraahu li nu jënde njub ci neen li nu njabar ci lu dul njabar nañ xam ni maa lahum fil axirati amuñu ëllëg yawmal qiyaam fa yàlla min xalaaq min nasib mooy amuñu fa benn cër amuñu fa benn euh, lu leen di borom bi subhanahu wa taala war a terale kon leen fay am mooy leen mooy mbugal yan ci yàlla waaye ginnaaw loolu da ngay taxaw nga indi ñett euh, ay tomb ci bunt bi lan mooy njabar loolu nga war a njëkk a leeral luy njabar ginnaaw gi njabar ndax lu am la wala amul ndax lu am jeexantal la wala amul jeexantal ñetteelu tomb bi mooy luy àttee njabar ak njabarkat bi luy àttee njabar ak njabarkat bi boo xoolee texte yi ñëw presque génnul ñetti tomb yooyu léegi nag tomb yooyu bu nekkee ci sa bopp am na texte boo xam ni ci bii la jëm am na texte boo xam ni ci lee la jëm am na texte xam ni ci njabar ku mel ne Abu Tahir al-Maqdisi dafay wax ni moom daal ay fas la ak xaaw ak yëf-yëfaan yoo xam ni nit ki da koy jaxase def ko ci dara wala jëfandikoo ko cib anam mu jeexantal loolu mooy njabar ay azaim la ak i uqad yoo xam ni da koy def ci dara ah fa yu athir fi abdaani naasi aw fi uquli naas mu jeexantal ci yaramu nit ki wala cim xelam mais baatu sexra nag baatu arab la moom sexra mooy lépp lu nëbb rek lépp lu làqatu loolu mooy loolu mooy avant fajar am na waxtu woo xam ne waxtu saxaar lañ koy wax parce que dafay desee leer yeesaa tamit nit ki euh, nga mën a wax ba jommal ko wala demee noonu yeesaa ca araab rek ñu tudde ko sexar mais nag du sexar ci sharia mais li nga ko wax ba nga xam ne tey convaincre nga ko dañ naan kat yow kat njabar nga ko fekk liñ ci jublu mooy wax nga ko ba convaincre ko loolu duggul ci sunu buntu tey bi la yonent bi doon wax naan inna minal bayaani la sixra am na ci xeetu leeral yoo xam ne day mel ne njabar la parce que da nga wax nit ki ba convaincre mais ndax njabar lu am la wala amul buntu ba am solo la yeesa di nga ñëw taxaw ci nit ki naan ko njabar baaxul dafa xaraam nangam nangam lam lay njëkk a wax loolu moom mënuma koo gëm wala affaire bi daf laa laalu rek man maa gis ku nu njabar mu dee man maa gis ku nu njabar mu dof am na koo xam gis nga ban ko njabaree ci la yëppam yàqu maam di indil ay mbir yoo xam ne ay réalité la ñuñu ñu njabar njabar ga jàpp ci ñoom léegi nag moom loolu lay tënk ni kon njabar kon dagan na comme njabar nan kii mu dem man lu tax lu tee ma nit ma dem njabarlu ba kii du ma mën ba kii du mën a jeexantal ci man foofu li ñuy wax mooy lu am jeexantal la li tax njabar lu am jeexantal la parce que yàlla subhaanahu wa taala su njabar am woon jeexantal du nu wax ñu ci ñuy muslu ci njabarkat yi wa min charri nafathaati fil uqad la yàlla wax day leen muslu ci njabarkat yu jigéen ñi meeru njabarkat yu jigéen ñi muslu leen ci seen ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sahal njabar nan ko njabar goo xam ni am na jeexantal muy dem mais nag jeexantal gi aggul ci benn kii bi fam yam rek comme ni ko suñu Aïcha waxee yeesaa muy sikk saaka fan la fan la aye wala muy jàpp ni def na lii fek defu ko wala wax na li fekk waxu ko waaye ci sharia baak lam ce wax moom loolu laalu ko mu wér ci sal Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa ni yàlla dafa yebal ñaari malaaka ñu ñëw kii taxaw ci côté bopp bi kii taxaw ci catal tànk yi ñu ni waaji sun waaji lu ko dal maanaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu ko dal kenn ki ni ko matbuub dañ koo njabar mu ne ko waaw waman tabbahu ko jabar mu ne ko labid ibnu asam benn yahud bu ñuy wax labid fum mu jabar njabar gi njabar gi daal jël na ay eh, kiiwu eh, eh, kawar maanaam ci ruusute yu des ci peñe yi boole ko lenn ci xawi tàndarma yeeg nangam ñu dem dugal ko ci benn teen bu ñu wax biiru Zarwaan àggul ca ndox ma te kiiwul ci pind bi lañ ko roof ñu dem génn ko yàq ko dañuy wax ci yeneen riwaayaat ndax wér na wala wéru allahu ñu ni fukki fas la woon ak benn yàlla wàcce xulos bi da fala ak xulos bi rabbin naas bii di juróomi aaya bii di juróom benn aaya bu ñu mu yàq loolu mooy su fekkee ni riwaaya boobu wér kon njabar li ma bëgg a mooy lu am la yàlla subhaanahu wa taala na ci suratu baqara fa yataallamuuna minhuma maa yufarriquuna bihi bayna al mar'i wa zawji ci njabar dinañ def ci njabar loo xam ne dina tax nit jëkkër ak jabar tàqali ko bañante dina tax doom ak baay wala doom ak ndey bëggante woon ñu bañante dina tax nit ak soppeem noonoo dina tax nit dem ba xelam nekk du fi sax mënatul a toog ci place liggéeyu dina dem ba nga xam ni nit ki dina yenu ay sagaram di taxawaalu ci mbedd mi yooyu yëpp njabar mën na koo def kon njabar am na jeexantal li Cheikh Xaafis Xakami di wax naan al sixru xaqun wa lahu taathiru laakin bi ma qaddarahu alqadiru nee na njabar dëgg la réalité la waaye nag mënta jeexantal ludul yàlla subhaanahu wa taala seetaan yàlla seetaan yàlla seetaan bokkul ak maam yàlla la neex fa mu la ñuy al irada al kawni ak irada shar'iyya xam nga kii rey nit ki bokkaale ak yàlla subhaanahu ndax loolu neex na yàlla neexu ko maam laysa min mahabbatihi waaye nag bi hikmatihi bàyyi na mu am waaye kooku dina ko ci mbugal ëllëg yowmal qiyaam su ko jéggaluwul kon njabar am na jeexantal kenn sikki sàkkawu ci texte yi leer na ci naññ yu alquran ak yu sunna waaye nag luy atteem li atteem mooy dafa xaraam kéeféer la dafa xaraam te ak kéeféer la borom téere bi indi laay wa laqad alimu laman istaraahu maa lahu fi l axirati min xalaaq ku amul benn cër fa yàlla ëllëg yowm alqiyaam mooy kon la ngay def baaxul mooy la ngay def baaxul yàlla subhaanahu wa taala waxaat ni yëpp tegtal la yu wone dafa xaraam yuminuuna bil jibti wa taaxut nee na yéeféer yi dañuy gëm jibt jibt nag ay tafsir yu bëri moo ci ñëw mais boo jëlee tafsir Omar ibn Xattaab bi jibt bokk na ci njabar ak taaxut mu seytaane moo tax boo xoolee ginnaaw laaye boobu borom téere bi indi na ci ñaari tafsir tafsiru Omar ibn al-Khattab ak tafsiru Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah ibn Haram ah, al ansari mu ni qaala Omar al jibtu as sihru Omar ibn al-Khattab nee na jibt mooy njabar at taaxut mu ni mooy seytaan Iblis Jaabir ibn Abdullah nee na at tawaaxit nee na taa euh, taaxut yi duñ benn maam ñu bëri lan waaye ñoom daal nee na ay kuhaan lan ay njabarkat la ñuy doon ay buxaabakat la ñuy doon yoo xam ne quartier bu nekk dina am benn ponkalo buxaaba fa nekk quartier bu nekk mën naa am benn maire boo xam ne moom la nit ñi di dem wala village bu nekk wala dëkk bu dina am koo xam ne nit ñi moom la dem mu leen di njabaral ñu jàpp kooka moom bu la ñaanalee mu mu dal yee saa nga gis koo xam ni ñàngal na ñàngal ba nit ñi gëm ko ay ministre sax dañuy fàq di fa dem yee saa ay président sax saa ñu làqatu difa dem parce que ñàngale ba nit ñi maam gëm ko xam nga yee saa maam euh, surtout yenn njabarkat yi ñu ci ëpp ñu ci ëpp duñ ay njabarkat vrai mais ni ko xale yi di waxee la xaw ma terme boobu war naa ko wala war ma ko ay ay dóorkat la maanaam ay pexe la ñuy def mais mais réellement sax njabaru dëgg-dëgg bi nga xam ni tey nga mën a jëfandikoo jinne bari na ñoo xam ne àgguñu foofu yeesaa nga ñëw ñu bindal lay téere yeesaa nga ñëw ñu defal lay xaatim yeesaa nga ñëw ñu defal lay kii defal la nangam wala yeesaa gis ku ci dëgër fit koo xam ne danaan day xaaju ni nangam day am far mu tombe senegal moom loolu bu amee rek jeex na la ilaha illallah kii moom xalimaam du taxaw loom la wax bu subaa nga gis ko loolu moo jëfarloo sax ñu bari ñoo xam ni dafa mel ne léegi yàlla nag dafa leen a mere léegi ku ci nii rek yàlla def la def gis nga politique bi di way gagné waaw man nag yàlla def maa may maanaam may gis di jàkkaarloog affaire yi la neen am maam élection yii weesu rek bëri na ci ay ay ay ay ay dóorkat yoo xam ni euh, seen wax bu bu dëpp woon moom musiba la dinañ réeralaat ñu bëri waaye man de ma ci seeraan ñu bëri gars yi vaar leen ñooñu ñëpp dañoo julluut waxatuma na élection yi ndax élection yi weesu na waaye coupe d'Afrique bi ñu nekk day gis koo xam ne moom nee na man day moom li ma leer ko kooku moom amut sax ci moom moom final moom duñu ko dem xëy na mën na àgg demi final am ñu ni quart de maanaam yooyu yëpp ay ay ay ay la mais nag lu tax muy jàll parce que société bi ñu nekk nit ñi dañoo gëm njabar danoo jàpp ni mënta ñàkk ci seen mbir boo amee problème sax jàpp nga ni il nga dem ca sëriñ mu defal la ay affaire nga takk ko wala nga naan ko wala nga suul ko wala nga euh, jamb ko wala ngay wékk ko maanaam il faut que loolu mooy solution ba fàtte nga yàlla di nga ko wax nii nag yàlla laa gëm ñun ñëpp dañ naan yàlla lañ gëm mais réalité bi mooy buñ gëmee yàlla du wóolu woon ko boo amee problème pour bëgg liggéey ci njabarkat ngay dem mu bindal la léegi nag wootuma sax maire yeeg paa yeeg jànq yi daa dem léegi gone yu ndaw yi sax léegi ku ci examen sax di nga dem ci njabarkat foofu la ñu foofu lañu tol toll football yi sax nga football dong la dañ woo njabarkat yeeg maam duñ wax njabarkat sëriñ si wax nañ ci def ñaan nañ ci def xon xon mooy lan bi ci gën a doy waar nag ma gis ci maanaam ab ustaas boo xam ne moom ah, nee na maanaam day xonwal gars yi damay jël benn laaya kii ki def ci nangam maanaam mu nekk lu garaaw rawatina fekkee ni ab ustaas boo xam ni ma ngay askanoo ci sunna nga gis ni maanaam euh, njabar gi ak njaxas gi dafa yaatu dafa yaatu day taxaw da ngay taxaw ci kanamu télé di ko wax kanamu rajo di wax xam nga boo demee ba naan euh, euh, nanu nanu nanu nanu kii xon yi ndax ci affaire yi la bokk waaw gis nga laaya sàngam tudd benn laaya te ñu lay déglu ci sunna loolu musiba la musiba la kon euh, atta njabar dafa xaraam dafa xaraam njabarkat bi amul cër fa yàlla subhanahu wa taala njabar dafa bokk ci jibt léegi nag njabarkat bi ci boppam luy atteem ci àdduna Abu Hanifa Malik ak Ahmad ñett ñi ñëpp nee nan njabarkat bi amul amul amul ñaari wax nee na képp koom yaa ngi njabar yéeféer ngir gi ñu nekk ngiru imam Malik koo wax mu ni ci ngiru Malik ñun lan ne waaye ñun ci ngiru Malik ah te kala koy wax moo la dàqa njabar béjjën yaa nga ca kii ba pettaaw yaa nga ca ndigg la ah téere yaag ndomba yaag yëpp ña ca moom te mu ne leen ngiru Malik te ngeeru Malick nee na loolu dafa xaraam nee na ki koy def sax ab yéefar la te danoo sukkandiku ñoom ci ay xadis ci ay yàlla nee na subhaanahu wa taala wala yuflixu saaxiru xaysu ata ab njabarkat fu ñëwee ëllëg yowmal qiyaam du mucc muy topp weesu nan xadis bi wala qad aaya bi wala qad alimu hmm? loolu moo ñu topp ci téere bi ma ne wala qad alimu la man ishtarahu ma ne weesu nan ko ah weesu nan yuminuuna bil jibti wa taaxut mooy li eh, ak wax Omar ibn Xataab ak Jaabir bi koy firi kon yàlla subhaanahu wa taala nee na njabarkat fu mu ñëwee ëllëg du mucc kon mooy du jullit ñoom foofu la ñu sukkandiku ak wa maa kafara Suleymaan walakinna shayaatiina kafaru al imaamu Shafii muy Mouhamed ibn Idris Shafii moom moo euh, tàqale mu ni njabarkat bu ñëwee dañuy xool ndax jabaram gi day jëfandikoo jinne senegal nak du ne kii dañ naan euh, waa ji dafa am ay rawaan waaw waa ji dafa ay taalibe jinne imaam Shafii ni kooku di jëfandikoo jinne nag nee kook kooku moom yéeféer la. te am na ñu koy def te gis nga toujours kiy jëflanteeg jinne jinne di ko jox ak yu demee noonu noo man def jinne ji sartal ko loo xam ni loolu day màbbal diineem te moom xaw ma dina ko yëg xaw ma du ko yëg. day gis koo xam ne mën naa yore millions yu bëri mais du aji parce que mi ngi jëflanteeg jinne joo xam danaan ko daal sama sart leen rek la mooy doo aji ku la neex nag mën nga ko may biye màkk waaye yow ci sa bopp doo aji. dañ ko xam daal. Hmm? dañ ko xam de. lan la dañ koy xam de. dañ koy xam ñoo koy nangu am ñoo xam dañ naan la doo julli tàkkusaan wala ñu ne la ban nga julli julli yëpp mais doo jàpp nga d'accord am ñoo xam dañ naan la sa maraakiis bi ngay sol na ci bind faatixatul kitaab moom ngay doxe wala li ngay jiital ci sa biir yaram wala ci sa biir wala der bi ngay toog bind ci alxuraan ay sàngam ak ay sàngam sa asu nekk dee ca toog yow. maanaam yooyu la ñuy sartanteeg yow yeesaa ñu rey loola sax doomu aadama nit ngir deret yeesaa ñu rey loola puune maanaam yu yu bon la def yoo xam ni pour jinne ji nag di mën di jëflanteeg yow. doo ko ñeme sax. waaw. Hmm. Hmm. kaana rijaalun minal insi yauduna bi rijalin min al fa zaaduhum rahaqan doo ko ñe parce que soo naree kii dafay dina la tappaas wala mu tappaas sa njaboot yi mooy réalité ak njabar moo tax al imam Shafii ni su fekkee day jëflanteeg jinne kooku moom ab yéeféer la sikk sàkk amu ci nee na su fekkee nag danoo xool jëflante wala jinne lu dul dafay jël ay ay mbir rek di composé ah jël na nen bi boole kook lii jàmb fii jël na lii bind nangam nangam xam jëflante wala jinne kooku moom nee na ab faasiq la dun ni la mais nag ku bon la kon da gis ni bu mu ci mënti doon baaxul euh, yal na ci yàlla musal loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi ci hadis bi abi hurayra nettali mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ijtanibu sab'al mubiqaat na ngeen moytu juróom ñaari mbir yi nga xam ni da leen di alak am na juróom ñaari mbir yoo xam da leen di alak kon dafa bokk ci bakkaar yu mag yi al kabair kabair nag ëpp na juróom ñaar di gis ku ñëw ne la juróom ñeent gis keneen ku ne juróom ñaar fukk gis keneen ku ne Euh, juróom-ñaar téeméer waaye du lu ñuy tënk ci euh, lim mais lu bëri la moo tax am nañu ci taalif sax euh, alxaafis ibnu rajab taalif na ci Muhammad ibn Abdul bi ci masail jahiliya yu ci bëri yi mu doon tudd ci kabair la am na ñeneen ñu ci taalif yaakaar na al imaamu Zahabi ak ñeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moytu leen juróom-ñaar yi nga xam da leen di bokk na bi ci njëkk mu ni uh, avant loolu sax saxaaba yi ñoo ko laaj ni ko qaalu yaa rasul yaa rasulallahi wa ma hun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow ndawal yàlla yooyu mooy yéen yi alak nit ñi mu tudd ko mu tudd ci ashirku billah mu ni bi ci njëkk mooy bokkaale yàlla yàlla nañ ci yàlla musal bokkaale yàlla mooy nga wutal yàlla ndend nga wutal yàlla ndend lu yàlla jagoo nga laaw ci kaneen wala nga jox ko kaneen loolu mooy bokkaale mu ni was sexar xoolal deuxième position bi ginnaaw bokkaale lan la sexar njabar te ñun dafa mel ne ndox ndoxu naan maanaam yow nga bañ a jëfandikoo njabar yow yaay ki jaaxal nit ñi yow yaay ki bizarre ngeen baal ma ci maanaam baat boobu su fekkee ni euh, baat bu diis la wala dara mais ki xam ne mi ngi dem ci njabarkat bi mi ngi tàkk mi ngi naan kooku moom lu naturel la def léegi saa sa ñii mooy ñu dul takk ñii de mooy ñi nga xam ne ñoom nee nañ du nu du dem ci sëriñ maanaam yow noonu loolu lay présenté yow mooy man damay takk damay dem ci sëriñ damay jamb damay xooj damay nangam nangam mais yow moom ah li nga de yéen da ngeen a raar daal. ci ci réew moo xam ne nee nan quatre-vingt-dix-huit pour cent ay jullit la quatre vingt ay jullit loo war a jóg war a def sa jàpp nga ni il faut ak njabar ndax ca wala yu demee noonu mu ne wa qatlu nafs faat bakkan allati xarama allah boo xam ne yàlla dafa xaraamal ñu faat ko amoo ci benn ak ci nga rey nit loolu rek ëpp ko doole wala bëgg jël alalam wala yu demee noonu mu ne illaa bil xaq lu dul bakkan boo xam ne moom dañ koo faat ci dëgg bakkan buñ faat ci dëgg mooy lan mooy ku rey nit ñu rey la ah ku njaalo ñu rey ko ku murtat ñu rey la yii mooy yi nga xam ni ah, mooy bi xaq comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa indee ci ah, laa yaxillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalaas deretu jullit du dagan nga tuur ko lu ci ñetti mbir mooy ñetti yooyu kon mu teg te wa aklu riba lekk riba riba moom léegi daa mel ne léegi eh, moo gën a dagan sax xanaa njaay ak jënd yi bu ci nekkul banque islamique na muy leble leble intérêt la duñ ko tuddee nag riba mais intérêt lañ koy dañ koy tuddee banque mën ngaa jëfandikoo ak dem jël sa alal dénkaane ko fa waaye la fa dénkaane boo dénkaane woon un million boo koy jël jëlaatal un million bun la ca tegalee dara bul ko laal wala boo ko jëlee ba récupéré ko demal nga saraxe ko bu ko fa bàyyi maanaam bu ko bàyyi mu jaxasoo ci sa alal wala nga am ay compte yoo xam ne mën nga kii mais yow ci yow la ñuy jël man ko dafa mel ne da ñëw dénk nit ki mu naan lag dang may fay weer wu nekk nangam banque Euh, yëpp noonu lay def wala boog am yi ci soo ñëwee am fa compte weer wu nekk dinañ dagg ci yow loolu amul problème waaye su fekkee da nga def contre boo xam ni épargne la boo xam ne dañ ci tegaat dara loolu ñu ci teg na ko jéem a xam soo dee ba jël ko bu ko fa bàyyi ndax boo ko fa bàyyi ñoom ñoo koy jariñoo waaye jël ko dem jox ko ñu ko soxla am maa nag dem di leb di leb nag. boo lebee ñu ne mën nan laa lebal un million mais booy fay da ngay fay un million cinq mille bu boobaa riba la parce que kullu qardin jarra manfaa fa huwa riban la yonent bi wax bépp leble bor boo xam ne boo ko fay dem intérêt riba la ala kulli hadis bi li ñu ci gënoon tax a jóg mooy a sexru njabar wa aklu maalal yatim lekk alalu jirim ci lu dul àq ci lu dul dëgg ci lu dul xaq wa tawalli yawma zahf ak daw bisu xeex julit ñi yéeféer ñi jaamaar loo di xeex yow nga daw kooku ci bàkkaar ma mag yi bokk wa qazful muhsanaat ak di tuumaal jigéen ñi nga xam ni ay jigéenu jàmbur la maam jigéen ñoo xam ne euh, laale laalewunu nga ñëw di leen tuumaal ngir noonoo goo leen noonoo wala ñaaw njort goo ñaaw njort maam mu ne alxaafilaat ñi nga xam danoo set wecc ci la leen di tuumaal ah almuminaat ñu nekk ay jullit maam tuumaal jigéenu jullit comme na euh, naafeqee tuumale woon suñu yaay Aïcha loolu dafa bokk ci bakkaar yu mag yi moo tax lislaam daf lay wax ne bala ngaa wax ni diw njaalo na wala diw nangam il faut day am ay seede day am ay seede ñeent ñu ko gis kenn ku nekk ñun ñoo gis gën kuur wala kuur ci biir gën ñooñu ñëpp ñu woo leen laaj leen ba ñu wax mais man bu nekkoon ñaar. wala ñett sax bu boobaa dañ leen di duma kon dafa war a am seede yoo xam ne yu leer naññ la euh, moo tax euh, réew yi nga xam ne ni àtte lislaam euh, raar na xadd boobu àtte boobu ñu koy tax taxawal parce que yombul nit mën naa sàcc ñu jàpp ko nit mën naa rey nit ñu gis ko mais am loo xam kenn du ko def ci mbedd nit yi day da koy suturaal yàlla mën na ko suturaal fii ci àdduna mën na koo jéggalu yàlla jéggal ko ko waaye nit mën na koo gis kenn wala ñaar bu boobaa su amul ba muy ñeent moom ñu mi wula wax parce que su waxee moom ci boppam bu lislaam doon àtte moom lay dugg kon euh, yooyu yëpp dafa bokk ci yi alk mam yi alake juróom ñaari mbir yi nga xam ni ba ca jiitu mooy bokkaale deuxième position ba mooy mooy njabar kon njabar dafa xaraam ci xadisu jundub mu ne an jundub marfuan marfuan mooy jële nañ ci jundub mu jële ci yonent bi loolu loolu la terme bi di firi ci mustalahul xadis bu ne woon an jundub mawquufan mooy jundub ci boppam moo ko wax saxaabi bi bu ne an jundub marfuan mooy da koo jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag am na wuute ndax yonent bi moo ko wax wala jundub moo ko wax xëy na li gën a wér mooy waxi jundub la ala kulli xaal su fekkee xadis bi wér na ñu ne xaddu saaxiri darbuhu bi sayf atteb kat mooy tàqale boobu ak baat ba dóor jaasi mu dee ci saasi maam dañ koy rey ab njabarkat dañ koy allahu akbar su fekkoon ni njabarkat dañ koy rey dina bari njabarkat yu ñuy rey fii ci Sénégal rawaahu tirmisi al imaamu tirmisi moo ko nettali mais même moo bi ko euh, nettalee abu isa tirmisi dafa ni as saxiixu annahu mawquuf li gën a wér mooy lii waxi jundub la mais du waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam as saxiixu annahu mawquuf ah waaw mais léegi yooyu yeesa boo ko jàngoo ci musala nga ñëw rek ne an jundub jël nañ jundub marfuan affaire bi dafa taxaw wala nga ni mu taxaw fekk xamoo luñ ci jublu. wala nga ne wa saxi annahu mawquuf li wér daal mooy affaire bi dañ koy stoppé déedéet fekk ay euh, terme la kon waxi jund boobu alaakul xal saxaaba yi ñoom loolu lañ doon pratiquer loolu lañ doon pratiquer te lii wane loolu mooy xadiisu Bujaalat ibnu Abda bi ñëw ci Saxiix Buxaari Bujaalat ibnu Abda kenn la woon ci gouverneur Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab bind ko leet ni leen xool leen ñëpp sax la bind dëkk yëpp xool leen fu fi njabarkat nekk rey leen leen mu ni kataba Omar ibn al-Khattab an iqtulu kulla saaxirin wa saaxira qaala fa qatalna salaas sawaaxir bu jaalt ibn Abdu nee na man bi sama leetar egsee ci man ma xool mu jóge ci kilifa gi ah ñu xool dëkk bi wër fépp dëkk ba yépp dëkk ba mu ba mu doon euh, gouverner ñetti njabarkat moo fa nekkoon nee na ñëpp ñu rey leen ci Madina Hafsa nee na amoon na benn njabarkat bu jigéen bu nekkoon këram dañ ko génne rey ko léegi loolu bu fekkoon ne loi moo doon àtt fi loi islam ñu ne ki ki leen njabarkat yi maanaam njabarkat yi problème mu ñuy ëpp ñu doon njabar. léegi nag bu boobaa guerre guerre civile lay doon wala guerre nangam te bu amoon sa ba matul ñëlee ñooy gagné parce que ñooy ëpp te am na ñoo xam ne bu dul njabar dañuy dem di njabarlu ñooñu fu ñuy far te njabarkat ya kon musiba la gis nga ni diine ji di dëkkum lammu nga génne benn nit wala ñaari nit ñu ñooy njabarkat fii ci Sénégal nga gis ab njabarkat bu nekk imam mooy jiite ci jumaa ji waaye mooy katabaal ñëpp mooy bindal ñëpp téere xaaw bi moo la ko bindal loolu musiba la wa saxa an xafsa xafsa radiallahu anha doomu omar ibn alxataab la nee na annaha amarat bi qatli jaariyatin laha saxaratha fa qultu wa kadalika saxa an jundub xafsa nee na am na benn Euh, jibéer benn jaam bu jigéen bu nekkoon ci Medina ci këram ba mu ba xam ni kii day jëfandikoo njabar ak sax di ko jéem a jabar dan koo rey te loolu moo doon tamit position Jundub ibn Abdullah bi mu ne xaddu saaxiri darbatun wala darbuhu bi sayf kon daal ñu xam ni euh, bunt bi mooy buntu jabar ñu jàpp ci ay tomb bi ci njëkk mooy xamle luy njabar xamle nan ko ñaareel bi mooy ndax am na jeexantal wala amul jeexantal lu am jeexantal la ñetteel la mooy atte ak njabar dafa xaraam jullit waru koo def waru koo def lu luy atte njabarkat bi ci boppam su fekkee day jëflen jëflanteeg jinne yéeféer la ci gisuñu al imam Shafii waaye boo demee sax ci gisuñu Abu Hanifa ak Malik ak Ahmed ñoom nee na mi ngi jëflanteeg jinne wala jëflanteeg wala jinne ab ab la texte yi ñëw na ci alquran ñëw na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na yàlla sàmm te gis nga boo bàyyee njabar am na yoo xam ne su fekkee da bëgg muslaay rek su fekkee da bëgg rek yàlla aar la yooyu moo gën a efficace njabar du la du la aar parce que ab njabarkat boo xam ne tey euh, dafa ne daf lay jàppale mais beneen njabarkat ab beneen jinne bu ko ëpp doole bu ñëwee dina ko tamponné kon aaruwoo ndax yàlla am na ko ko ëpp doole alaysa allahu bi kaafin abda te lam lay jox doo génn xaalis wala ñu lay noggatu wala ñu lay tàqaleeg sa njaboot wala say mbokk wala say am di jàmm wala say dëkkandoo di wala njabar ak di wax sax di wala njabar ndax bu am loolu amoon nga dem ci diw direct ngeen àndandoo dem ca njabarkat ba waaye ki la njabar ku gàtt la ko njool la ku ñuul la ku xees la sab dëkkandoo la ko la jege la nag nanga nga moytu ku la jege nga nekk fa rek ku ne nga tuumaal ko waaye mais wujj nga ni sama wujj wala maam maam lu ne dan lay dofloo bu sa dara réeroon sax nga ñëw ni ko dama bëgg nga xoolal ma ko du li la demal ci bërëb sàngam nga jël ko loolu moo gënoon yomb bu su fekkee xam na ko hmm, ñu ngi ko këpp ci leget de fam nekk jugagu fa de fam nekk na xaw naa lëndëm maam yow yooyu yëpp kay boo ko xamee nel ma nga bërëb sàngam mu mais xamuñu ci dara dañuy dina gën a dofloo nga gëm ko parce que xam na ni nit ñi seen ngëm yàlla dafa faible dafa faible loolu leen wax ñu gëm loolu leen wax ñu gëm te ka la koy wax léegi ñu ñàkk jom leen ñàkk ñoo xam ne suñu waxee loo xam ne wuute na ak dëgg du leen sax kiiwal du leen sax du leen sax gêné waaw am na koo xam ni euh, ren jii de lu yàggul bam ko bam ba mu waxee ni nangam leen am loolu amut mu defaat beneen vidéo ni ku ma vaar man danaa la port plainte waaw <laughs> yow nga wax li nga wax wax say nar ah mu la naañ nga naan ku ma vaar ma porter la plainte yàlla na yàlla defal dégg topp yàlla na yàlla xëy ci boppam hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah